ba léegi ñu ngi weddi ki yore kàddu gouvernement bi dégg nañ ko Seydou Gueye mu wax ni rapport boobu mënuñu cee basé wu ngir wax ni Sénégal dëkk boo xamante ne ni corruption daf ko sanal parce que nee nañ dëkk yu ñu ci lim sax am na ci yu bëri yoo xamante ne ni dégluwuñu leen mais est-ce que loolu rek euh, mën nañ ci sukkandiku pour gëm seen i kàddu yu ñu yu ñu expliqué ci ay ci ay ci ay lay yu ñu joxe entre guillemets. non mais loolu lay la parce que sénégalais yi soxlawuñu sax. Euh, Transparency International wala ay rapport di jóge bitim réew naan ñu seen dëkk lii moo fi am problème parce que boo xoolee sénégalais yi coow li fi jub woon jëboon ci weer yi passé nga xam ne moo lëmbe woon dëkk bi muy mbirum pétrole bi ba sànq ci suba kenn mënu wax fu mu mujjee parce que jëm nañu ndëpp coow li jënnewaat ay yeneen dossier léegi ña nga xam ne ñoo doon xeex pour mbirum pétrole bi leer dañu dévier seen combat parce que jël nañ ay nit utiliser détention préventive comme arme pour punir leen le temps que les juges donc léegi nit ñi dañoo fàtte combat bi nga xam ne moo leen yëkkati woon muy leeral avant transparence di ko wax mbirum gestion wu chose publique yi loolu lu koy firnaal mooy boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal ñu am nit ku jóge bitim réew ñëw ñu signal ko décret ci anam yi nga xam ne jarul ñu ciy ñëwaat ñëpp gis li fi am déjà ne serait-ce que pour le principe bu ñu bëggoon def benn marqueur benn message parce que mbirum xeex corruption yooyu nekkul rek euh, ay poursuite mais benn message pédagogique bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom aussi askan bi wóolu na leen tey jox leen ay responsabilités. maanaam ñoom ci seen bopp. ñoom d'abord ñu poser les actes d'abord. ñu poser les actes comme nu mu ko doon waxee. Euh, moom ba muy soog a jël bopp nguur mi daa ne CREI pour ñeneen ñi fi nekkoon la. Mhm. wante OFNAC pour yéen la. Mhm. mais tey daanaka ba léegi of nag nekku fi pour kenn pour ñoom. ok alors déclaration de euh, déclaration de patrimoine du président de la république boobu ba léegi ñu ngi koy xaar ci ñaareelu mandat bi. Euh, hmm. defu ko wax nañu sur 600 personnes yu déclaration bu euh, concerné ñi ngi wax ni 350 voire 400 personnes ñoom ñoo def déclaration boobu est-ce que déjà tey loolu indiwul problème. waaw loolu déjà mooy manquement bu ci njëkk parce que hmm, booy woote transparence di woote bonne gouvernance déjà buñ la joxee alalu réew mi da nga war a joxe exemple maanaam euh, tu donnes l'exemple par les actes bu ci njëkk moom mooy nga ñëw comme on dit summi say poos génne ne lii laa am comme ça bés boo fiy jógewaat nga ne waat lii laa am ñu mën a xool ne ah sawaaykat ci anam yu mu fi toogee jàpp nañu ni duubalul dërëmu dëkk bi mais boo ñëwee toog ne nit ñi sangu leen te yow commencé goo sangu loolu day doon problème. ci wàllu yoon nan lañ ko mën a jàngatee ñu teg fi ab loi pour xool nit ñi kenn ku ci nekk sa am-am da nga ko war a wane nii lii nga am moom njiit réew bi ci boppam euh, defu ko alors tey ci wàllu yoon ban jàngat lañu ci mën a am. waaw jàngat buñ ci mën a am moom mooy c'est une violation de la loi maanaam euh, woroowul ak yoon par contre ci yan anam lañ ko mën a sanctionner. loolu moom mooy insuffisance yi c'est-à-dire yëpp dañ ci war jàngat pour ñi nga xam ne waxuma la moom mais ñu war a ñëw yan modification légale la ñu war a def que président bi nga xam ne deful déclaration de patrimoine wala bu amee yenn constatation yi ñu am benn possibilité mu am mise en accusation au niveau du parlement parce que bu ñu fàttali ni parlement ñaari rôle la am ñaari mission bu ci njëkk mooy def ay loi mais aussi mission de contrôle la donc bu ñëwee gis benn situation bi nga xam ne tey am na kenn ki nga xam ne teg nañ benn ponk bu jiitu bi nga xam ne mooy ki nga koo boo ñëwee ñu dënk la alalu réew mi da nga war a wone jënnee say poos ne nii laa fi ñëwee mhm. ñu mën a xool entre ñu mën lay contrôler mais defu ci dara léegi yan xeetu daal peut-être possibilité wu mise en accusation dans le cadre du parlement mhm. foog ñu am benn procédure bi nga xam ne en tout cas même boo nekkee njiitu réew mi dinañ am possibilité wañ sa loxo bu dee wàccoowoo constitution bi ak loi wu règlement yi lu ñu wax. alors euh, ne OFNAC euh, dafa dem au-delà de sa fonction wala de son rôle qui est de lutter contre maanaam xeex corruption. moom moo taxoon ñu wax OFNAC liggéey bi nga xam ne jël na ko tey épingle yenn ñi nga xamante ne entreprise lañ liggéeyu IGE la waroon nekk wala nag moom mën na ko def comme ni mu ko defee nii. non OFNAC mën na ko def parce que ci loi bi nga xam ne moo ko sanc ci ay mission la nekkul corruption kese mais dafa nekk fraude fraude dafa nekk benn notion bi nga xam ne dafa yaatu ci droit ci mbirum yoon ça veut dire que lépp li nga xam ne yaa ngi koy def. te ci anam yi nga koy defee leerul wala méngoowul ak yoon mën nañ jàpp ne fraude la mm-hmm. donc compétence yu ñu ko jox en réalité dafa yaatu mm-hmm. donc loolu ñoom ci seen bopp comme ni ma la wax kenn ñëwul forcer leen ko ñoom ñoo toog ne dañuy campagne teg seen discours wax ak askan bi ne dañoo soxla réew mi ñu gëm dëggutewu message bi nga xam ne moom lañ doon wootee léegi di leen ci xaar mais ba sànq ci suba gis nañ ne lépp li nga xam ne woote woon nañu ko gisuñu ko ci pour tontu ci sa laaj. Mm-hmm. mën nañ jàpp ni OFNAC ci ay mission la nekk et que wàccoowuñu yoon léegi euh, OFNAC ak IGE ñi nga xam ne ñoom ñoo tënk euh, charte yi nga xam ne ñoo leen lal déjà xamoon nañ ne ñaari organes yooyu dañuy di nekk face à face et qu'il fallait pas mu am ay conflit de compétence mm-hmm. ba sànq ci suba boo xoolee. peut-être amoon na benn genre coow bu jiboon mais mujjantal bi parce que ñoom ay organe de contrôle lañu mm-hmm. foofu nag ci laay daanelee parce que dama bëggoo aussi ñu delloo si xel yi ci ñaari mbir bu ci njëkk moom mooy euh, dafa am présomption d'innocence euh, xam nga nag ci boppam mën na ñëw enquêter def ay investigation euh, ne peut-être am na ay irrégularités yu nekk fi mais c'est pas parce que am na ay irrégularités que forcément dafa constitutif détournement wala beneen xeetu infraction euh, lu koy euh, nu mu tuddati sax lu koy lu koy wone moom mooy mën nga jël nit euh, dënk ko benn entreprise wala dénk ko benn service ñoom bu ñu ñëwee ay auditeurs lañ dañuy xool contrôle de régularité est-ce que mbir mi jaarale nga ko ci procédure yi mais mën nañ xool gis ne peut-être tolloon nga ci ay jamono que mbir mi pour mu bañ a taxaw am na ni nga ko jaarale àndu ci mais gis nañ ne amul benn dërëm bi nga xam ne jël nga ko dugg sa poos wala am na lenn li nga xam ne jël nga ko luubal ko. loolu nan lañ ko mën a confirmer ci lan lay doon enquête la ñuy defaat. mën na nekk fausse de faute de gestion mën na nekk faute de gestion. bu fekkee ne OFNAC dafa taxaw foofu alors que épinglé wu la juste que hmm. dafa gis ay irrégularité nan la ñu mënee dem. ba hmm. confirmer que li la OFNAC doon wax lu am la OFNAC bu paree ba teg rapport am mbir mi mbirum tribunal la. donc ki nga xam ne moom la ñu jiiñ day jël avocat bu dee procureur bu ñuy wax yëfu tribunal mooy mbir mi déjà d'accord nañ ne day dem tribunal. léegi donc comme yeggagul tribunal donc dafay am présomption d'innocence. ba tribunal di décider que yow li nga wax nii maanaam bu ñu nee da nga luubal am na élément constitutif maanaam yoon daan na ko. am na élément matériel maanaam du invention mën nañ ci dut baaraam xam ne lii am na. mais aussi élément intentionnel. alors est-ce que wax ne dafa am ay corps de contrôle dañu am ay limites d'autant plus que gisaguñ ci wala bëriwul yoo xam ne dem na ba ci kanamu àttekat bi. non amuñu limite parce que te euh, tey ci ñoom maanaam président moom mooy chef jiitu exécutif. Hmm. moom moo jiite exécutif. corps de contrôle contrôleur rek da koy koy yónni ne ko demal saytul ma bële entreprise. Hmm. moom mu dem saytu am na ay ponk ak charte yi nga xam ne nee nañ ñi lañ ko war a téye. bu demee xool téyewuñ ko noonu day ñëw ne la ah saa waaye ko noonu. Mm-hmm. mais moom nekkul ci mission dañ ko tere sax mu jiñ nit ne da nga luubal wala leneen loolu beneen débat la c'est un débat judiciaire qualification yi juridiction moo ko mën a def. Mm-hmm. donc lépp yoon daf ko prévoir. sànq maa la ko doon junj ci mbiru Khalifa Sall. parce que mm-hmm. bi fa enquêteurs yi demee euh, wax ni am na xaalis bu fa manqué euh, yàggul dara. Khalifa Sall dañ ko woolu ci yoon alors tey euh, bu ñu gisee euh, président Macky Sall ak ñi mu àndal ñu tudd leen ci lu mel noonu tamit jusqu'à présent ñu toog euh, di leen xool waxuñu leen dara tey finalement sànq maa la ko doon junj di la ko laaj est-ce que ñu war ne tey jii nii Macky Sall sax moo gën a yées Abdoulaye Wade. waaw peut-être du ma dugg ci débat comparer kan moo gën a yées parce que day mel ni damay mettre en doute woowu Wade mais lu leer ba leer moom mooy tey instrumentalisation bu ñu am à des fins mosuñu ko dund muy ci Senghor ci Abdou Diouf wala ci Abdoulaye Wade euh, maa ngi fàttali Abdou Diouf ba mu ñëwee yegg si gis CREI yi nekk fii euh, ba mu defee prestation de serment gisoon na ne déjà peut-être formation juriste moo ko ci yóbbu que laloowul respecté wul ak ak yelleefu doomu aadama mu ngi doon ñaan ci yàlla ci lu mu wax il priait le bon Dieu ne mhm. de ne jamais avoir à recourir à cette institution